salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu 2STV la télévision autrement ni ñuy amee mbégte saa su ne di jàkkaarloog yéen si seen émission amul na boo noonu lañ teewaatee fii jàkkaarloog yéen euh, émission amul na boo nag euh, ni ngeen ko xamee dina am euh, dimanche bu jot bu 15h jotee maanaam ñetti waxtu ci bëccëg di am aussi en rediffusion mercredi bu 16h jotee maanaam àllarba bu ñeenti waxtu jote ci bëccëg ni ma ko faral di waxee nag seen émission amul na boo. fii la lépp di leeree ba tax na tey dañu dalal ki nga xam ne moo di maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf nag député la à l' assemblée nationale jiite tamit euh, parti bi nga xam ne xamee nañ ko ci PTP parti des travailleurs du peuple euh, nekk tamit euh, ancien ministre ñu di ko wax rek salaamaaleykum maître. maaleykum salaam Amadou. maître ñuy am mbégte dalal la fii ci sunu plateau amul nëbbo waaye rek euh, dama bëggoon euh, tey nag ñu am euh, une démarche li tubaab di wax une démarche pédagogique parce que li ñu fas yéene waxtaan mooy mooy li nga xam ne moo xew ci assemblée nationale ngir mbokk téléspectateurs yi comprendre dama bëgg ñu faram ko benn bennal ko leeral ko ndax fii mooy amul nëbbo te fii la lépp di leeree. sama première question d' abord mooy assemblée nationale léegi session unique la session unique mooy lan. ak assemblée nationale boobu bureau bi buñ koy constituer ci session unique boobu nan lañ koy constituer waaw euh, maa ngi lay nuyu di la gërëm Amadou di nuyu sénégalais yëpp di leen ñaan ñu déglu li may wax ndax coow li bëri na ci li am assemblée nationale fan yi le treize bi passé bi ñu ubbee session boobu ngay wax bi session unique moo gën a grave le 23 juin xam naa li may le 23 juin. le 23 juin 2011 ticket présidentiel ak passage au premier tour avec cinq pour cent bi ñu bëggoon a def. waaw mbébét la woon ñu ñafe ba amul donc ici bii nii crime moo am assassinat moo am ba léegi nag tentative d'assassinat la woon. donc moo gën a graaw le xam nga ku ñuy wa waaj a rey. Mhm. ak ki ñu ba pare kan moo gën demin ah, ki ñu rey ba pare xanaa pare na. rey nañu ba pare. Hmm. léegi assemblée crime la crime crime bu tax président bi def crime bi ak ñi mu àndal ak ñi mu dimbale war nañ wujj ci yoon damani ni le 13 octobre mardi président moo gënoon xam moom président Moustapha Niass. que am na benn problème ndax am na ñaari list yu mu jot pour benn tour muy les libéraux et démocrates muy waa kër Ablaye Wade liste bu nekk am ku mu proposé comme président ak vice président li ko war xam na ko moo ko tey xam na ne dafa war a ñëw ba ci assemblée ndax foofu kooku ñu wax Moustapha Diakhaté di président. groupe parlementaire benn bokk yaakaar wax na fa lu ko neex lépp la wax lu dëgg sauf dëgg. waaw maître euh, loolu yëpp dinañ ci dugg dans le détail. waaw ma yegsi nag. mais dama bëgg rek ci président bi noonu. ci groupe bi la ñuy taxawalee bureau bi d'abord. bu session bu loolu koy taxawal déposé liste bi moo tax ma ne il fallait que bu tabaajee dama dégg mu ne. waaw ni ñu li ñu li tax Omar Sañu dàq liste am mooy du moo waroon déposé list bi bii di Aïda mujj jiite waaye Aïda ko waroon déposé boppam. binduñu ko ci benn texte. moo war a déposé liste. groupe bi demuñ ne mën na nekk chauffeur groupe bi mën na nekk planton mën na nekk daal ci bureau président. na yegg si daal ba kenn mënul wedd bañ déchargé ko comme courrier courrier la. courrier la du lu ñuy plaider doo ñëw di wax da ñëw joxe dem sa yoon. Mhm. ne loolu kay euh, yoon naan ne ko diw indi ndax ñu ko joxe ñoom wedd wu ñoo ko joxe du saaga wu ñu kenn bay daw res ñoo ko déposé. Mhm. am na ku leen ko joxe ñu déchargé ñu jox leen seen décharge mën nañ toog ci suuf jox benn plan donc mu yéeg joxaale leen seen yëf. waaye ñu ne list boobu dafa war am ay mandarga màndarga yi bu amul rek amoo groupe parlementaire màndarga yi ñu ne article vingt les députés peuvent s'organiser en groupe par affinité politique mooy mbiri politique la. Mhm. moo tax Macky Sall mooy tànn Moustapha Diakhaté Abdoulaye Wade moo tànnoon Fada. en 2012 pourtant boobu Souleymane Ndéné Ndiaye ko doon a gradé ancien premier ministre sortant Omar Sarr ancien ministre d' état sortant Ousmane Alioune Ngom ancien ministre d' état sortant Fada ancien simple ministre waaye ba ba Ablaye Wade ne Fada mooy jiite comme ñoo bokk parti te mooy seen leader comme Macky Sall ni mu ne Moustapha Diakhaté la kenn du ci teg baat Ousmane Ngom tegu ci baat Souleymane Ndéné tegu ci baat Omar Sarr tegu ci baat ñoo gënoon a gradé Fada moo tax Fada jiite leen moo tax bii it Wade ne mooy jiite euh, Aïda Mbodj mooy jiite kenn tegu ci baat Fada demu fa waxtaan ak ñoom pour moom daal président groupe parlementaire bu ñu ko defee rek ba àddina bi tukki la loolu mooy day wax ko neex ndax dama ne benn session mu am léegi yaa ma koy laaj. ñu ne fa lay continuer les groupes se constituent en remettant. en remettant neewuñ kan moo koy dugal de. en hmm. remettant pour wane rek Moustapha Diakhaté waxul dëgg. préciser wuñ ne. en remettant rek day na bi moo koy. amul fenn loolu loolu. wax en remettant lañ wax loolu mooy wax ku naafeq. waaw ak sos. les groupes se constituent dama leen lii rek man du ma fen de ñoom ñooy fen man du ma fen les groupes se constituent hmm. en remettant à la présidence une déclaration politique. pour hmm. ne ñun ay socialistes lañ ñun ay libéraux lañ nangam nangam signé signé. signature dafa signé de signé de leur membre maanaam ku ci nekk signé ku nekk dina signé ñu xam na xayma ñaata lañ te session bu nekk la accompagné de la liste de ses membres ñu jël liste membres yëpp ak déclaration bi membres yëpp signé ñu d'accord bokk yëpp signé waaw waaw ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe groupe at bu jot mhm. danaa ñun nangam lañu lii lañ bëgg ci réew mi ñun ay socialiste lañ dañoo bëgg réew mi ñëpp bokk séddoo alal réew mi ñu ne ay libéraux lañ dañoo bëgg ku nekk li nga liggéey jox la ko li nga yelloo waaye amul bokk loolu mooy libéralisme te mm-hmm. ku nekk am nga droit jéem loo am yaako moom ñoo wax ku nekk wax la ngay wax loolu mooy déclaration politique mm-hmm. ba pare mu am list bi ba pare ñu yëgal ci déclaration bi kan lañ bëgg bu nekk président ak vice président groupe bi. Mhm. loolu mooy courrier biy dem ci président avant ñu ubbi. kon kon session bi bu koy ubbi amul président groupe moo tax bu ñu dofloo ni ñu naan wéy Ablaye Wade du moo war a tànn ndax affaire bi entre député la c'est vrai entre député la mais dañuy dem seen parti bu demee ca parti ba parti bi am na chef. moo tax ba député benn boo ko boo ko yaakaar bëggee jiitewaat euh, jiitalaat Moustapha Diakhaté. wala ñu bañ ko jiitalaat dañoo nekk ndigalu seen kilifa Macky Sall dégg naa fekk yu bari daan waaye Wade moom du député lu ci yoonam waaye léegi-léegi Macky Sall moom député la te ñëpp dégg nañ recevoir na teeru na député yëpp présidence kenn weddu ko ne leen nii nii laa ko bëggee te bu ëllëgee ku fa falo falaatul bu fi ñëw fii di jooy da toog li may décidé décidé naa ko pare. maanaam joxe ordre joxe naa ordre ba pare. waaw léegi nu nu moom mooy seen kilifa politiquement. Mhm. c' est normal mais mais euh, euh, parti day am day am kilifa. Mhm. coalition day am kilifa. waa léegi nag lañu nangul Macky Sall am ne Abdoulaye Wade amul droit partem groupe boppam mu am fa dogal te mu tànn euh, fa Fada. Mhm. kanamu Souleymane Ndéné kanamu Ousmane Ngom kanamu Umar Sarr te ñoom ñoom teguñ ci baat. waaw ah, bii baax bu dee rek bu dee rek ngor ak jom mooy dox kañ tànnoon ñetti at mu jiite bu des ñaari at waaw bu dee ko da nga abal ak mu laal waaye boo goree war nga ci teg baat wala wala wala moo gën ñoom ay dem boo yow ñoom Omar Sarr ak ñoom Ousmane Ngom wala moom mooy yàlla bu ñëw ne léegi pousse la man ëpp mu di doole di mbir mi texte mhm. moo tax ña xamul naan waaw fada groupe am ba léegi moo ko yore fada dafa am groupe parce que bu bees ba dañ lay dañ lay bindal soit ñu ne Fada la groupe parlementaire bi bu doon comme année yi passé ren ñu ne ay Mbodj la. c'est-à-dire daal maître bu ma la déggee bu session bi tijji amul président assemblée nationale. Mhm. amul président commission. Mhm. amul président groupement groupe parlementaire. li mhm. tam tubaab naan table rase la. dañuy euh, demettre les compteurs à zéro. ñu soog a constituer un nouveau bureau. waaw même ak ay groupe yu bees. xam nga li ci neex xam nga ren fan yi passé lañu yóbbu yóbbu groupe parlementaire yi ba 15. changé yenn loi yi ni kenn du génn groupe bi dem ci group bële ñu gën a dëgëraat li ñu wax léegi nii xam nga boobu sax ñu ko woon mais xamoon nañ ko ndax même président assemblée bu session bi jeexee day dem toogaat place day dem toog comme député yëpp doyen koy falaat groupe day daanu vice président dañuy daanu président day daanu président commission dañu daanu lépp dañ koy dañ koy koy euh, yeesalaat ki mag ci député yi mooy présider waaw bañ fal bureau bi fal bañu fal ki nga xam ne mooy président avec bureau bi voilà léegi kon Fada moom mooy fada mi nekk fi président groupe bu session bi jeexee rek président groupe amatul kon ba ku ne groupe fada ak bu ñëwee bàyyeeg wala dañu fada mooy président groupe groupe kan léegi ren ñu yokk ci article boo xam benn alinéa bu bees boo xam ne gën a dëgg li ñëwoon session bu jot day amaat déclaration ak groupe bu bees groupe boo mën a doon session bu commencé yëpp la ñu renouveler du après boo ñu paree bi su ko ñëw ci modification daan ñu wax article yaa ngi biir article 20 Mhm. article vingt vingt bu règlement intérieur bu assemblée nationale waaw bu bees bu bees bi day dëggal article vingt waaw bi mu dëggalee wax affaire bi léegi ay quinze la mooy def groupe ensuite keneen Amadou Lat génn groupe dem ci beneen groupe dafa dafa waxaat fii pour les autres sessions de la législature mhm. législature mooy juróomi at yi ñuy fal mhm. mais day am session at bu jot day am session ñu ne ñu la déclaration politique de constitution de groupe est remise au président de l'Assemblée national dans les mêmes formes forme bi mooy contrairement ak di Moustapha Diakhaté waxoon ne dafa am il faut nga yóbbu ko président bi bi ñu ko fende les mêmes formes mooy li ma la ci article 20 mu ngi nii les mêmes formes mooy les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leur membre donc forme bi il faut amul paraffin amul amul def ay empreinte amul amul bàyyi doon vide signé de leurs membres accompagné de la liste de ses membres et des députés apparentés ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe loolu lañ ñu ci article 20 alinéa bees bi pour les autres sessions mooy mooy at pour les autres sessions de la législature ci biir 5 yi ba tey 5 ans yi. waaw am na session at bu jot session. 2012 2013. 2014. ba 5 ans yi mat. ba mat 2015. noonu la ñu koy defee ba mu nekk 2017. léegi ñu ne donc 5 session la ñu ne ñu pour les autres membres de la législature donc ci pour les autres euh, sessions de la législature. session mooy at bu jot bu la déclaration politique. de constitution de groupe est remise au président de l'Assemblée nationale dans les mêmes formes mooy maanaam maanaam daal chaque at chaque session bu tijji dañuy déposer waat beneen déclaration politique mu respecter forme yi nga préciser ay signature yeeg yooyu foo faut ñu xam groupe bi kan moo ko jiite léegi waaw bi bu dee am na changement aussi fa la changement bi feeñ bu amee ku bàyyi waaw ñu ne par exemple Awa bàyyi da Ousmane Ngom bàyyi da Ousmane Ngom léegi la hmm. moo tax moo tax Aïda Mbodj dafa ko ci listam liste bu baax bi mooy Aïda Mbodj fara moom ñëpp a ngi ci. Mhm. ñu bàyyeeg ñu signé beneen feneen nag parce que amul seen signature bu bees. waaw dañ ne Fada muy Modou Diagne Fada dafa reconduire. bu 2012 liste 2012. moo tax yow nga taxaw ne dafa def faux. mën nañu ko tëj kaso parce que parce que député bu def faux amul amatu immunité parlementaire parce que dafa am flagrant délit la def député bu defee flagrant délit amul kiraay amul malaane kiraay. dama leen fàng kenn du ko jeex. kon fadaa amuloon droit ci sa gis-gis jël liste 2012 indiwaat tegaat ko. man tuuti naa trop Amadou. waaw bëgguma nit ñi naan selon El Hadj Diouf dañuy wax selon la loi. loi bi ko bind man dama lay lire loi la. mooy li nga lire sànq. man sama sama wax amul solo lu loi bi wax laay lire damay lire man dama ma sos comme ñooñu. Hmm. man dama ni dañ la pour les autres sessions de la législature. donc at bu jot bu ñu ubbee session bi. day am hmm. déclaration politique signée par les membres. de du groupe mooy ñi bokk ci group bi ci biir déclaration bi ñu wax ci diw mooy président diw mooy vice président. waa mais li ñu dégg Modou Diagne Fada mu wax moom nee na ñi nekk ci listam ñooñu ngay tudd noonu ñoom ay Aïda Mbodj kenn envoyé ko ci ne bokkuma. moom mooy kan moom bokkatul bu groupe bi jeexee Modou Diagne Fada nekkatul dara. moog yeneen moog ñeneen ñeeyam chômeur la assemblée ndax amul lu fay liggéey. du groupe du président groupe du dara. kon amul benn député bu war a ñëw ci moom naan ko bok naag bokkuma. xanaa déggoo ma de neewuñu. session bu jot ku bëgg a bokk da ngay seet l'ancien président du groupe parce que ancien président amul ñun président sortant amul. waaw ah, texte yi de kenn bindu fi ancien président ngay seet. wala président sortant du groupe. kenn bindu ko fi. <laughs> waxuñu ni président sortant du groupe nga ngay jox sa dañ ni bañ ne ko ba leer dañ ni dañuy bind ci déclaration bu bees bi hmm. chaque at. group bu jot new new groupe new amul exception hmm. group bu mën a doon muy benn bokk yaakaar at bu jot war na bindaat ne ren Moustapha Diakhaté la déer mun na wax ne Moustapha Cissé Lo la dañu jéeg mën nañu Abdou Mbow la ndax président bi ñu fal moomul groupe bi donc chaque année bu ñuy def déclaration boobu dañuy préciser kan mooy président bi ak kan mooy vice président bi voilà boole ko ci liste ba léegi nag erreur yi cuune yi ak naafeq yi ak fenkat yi ak rambaaj yi ak ñi jaxase bopp Sénégalais yi ak seen soi-disant juristes yooyu nga xam ni gëm naa ni garder ay fas da leen sang moo gën moom lañ gën a mën ni jàng droit. déet waay waaw ñooñu naan porphyrie yi sax ñoo leen gën a jàng droit. bu dee ñooñu lañ consulté ba am fit di def lii ñuy def poursuite bi. Mm. dee nañ kaay ma wax expliqué le droit. waaye droit moo neex. Mm. yegsil. yow modification article 22 dañoo waaye ku ñuy wax monsieur Moustapha Niass. defe naa mooy président assemblée de. Mhm. moom la. ah yow député bi yow. <laughs> delloo naa la laaj bi. <laughs> yow mi nekk yow mi nekk député à l' assemblée nationale xam nga koy président bi. non kii Doudou Wade li ma dëgg la. <laughs> Hmm? kii mën naa topp suba grand du Wade parce que lii kii du président assemblée. Hmm. parce que moom moo ni man maa jël lii la li communiqué bii la envoyé Soleil Soleil dafa ni. nous avons reçu hier tard dans la soirée. xam nga hmm. lii mooy affaire xam nga li tax ñu jàpp guddi li ñuy wax euh, euh, vol aggravé. qualifié mooy nga bàyyi ba guddi ngay sàcc sàcc si bëccëg moo ëpp chance sàcc guddi. circonstance aggravante la xam nga boo bëggee dem njaaxu bu garaaw garaaw guddi da ngay nëbbatu mhm. ndax bu lu leer kuy def jàmm rek mooy def lu leer sole moo ne sole mhm. journal gouvernement bi donc journal Moustapha Niasse nous avons reçu hier tard dans la soirée ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale signé par son président Moustapha Niass qui déclare que la proposition de Marsar numéro est irrecevable nous vous livrons le document in extenso donc tout bàyyi bàyyiwuñ ci dara signé Moustapha Niass xam Niass lu wax lire fin bi Niass le bureau de l'Assemblée nationale au terme de cette délibération et en application des dispositions te lu leen de l'article 22 du règlement intérieur a déclaré irrecevable la proposition déposée par le député Omar Sarr numéro 1. maanaam ci article 22 la sukkandiku lu article 22 wax. xam nga Moustapha Diakhaté président group la. xam ne li groupe bi laaj. moo tax nangoo nangul tudd nangul tudd article 22 bi Moustapha Niass wax ne moo tax ñu dàq ba ay dem mbooj waaw bëggoon naa pour téléspectateur ñu xam ñu xam li article 22 wax. dama koy liir pour dire sama gars yi jublu lañ waaye nag sàcc na yomb na amadu hmm. waaye foo koy tëggee li gàcce la de ñoom dañu foog dañuy tëbal Sénégal yëpp nekk ay nulaar xamatuñ dara ñoom rek ñu jàng wala ñoom ñu am xel ñëpp nekk ay ndoxandoom ay dof. article 22 on y va. Hmm. les modifications les modifications. Hmm. à la composition d'un groupe composition. maanaam group ba am na ba pare. waaw xam nga ngay modifier. xam nga loo amul kay mën ko changé. dëgg la. lu guddoogul. ci article vingt et un ci article vingt amaguloon. article vingt. constitution la ba pare. waaw constitution groupe la. constitution ak modification du benn. waaw moo tax Moustapha Niass moom dafa jël modification boole ko muy constitution. defe naa ne man foog naa ku jàng français la ndax élève Senghor la woon waaye Senghor fu mu tëdd bu ngay xalangu mais xëy na it moo ko tey ndax boo bëggee def ñuul lang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 yow mi démissionné kay di nga bind xanaa ni démissionné nga mhm. président assemblée jot sa démission sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation mhm. bu dee benn membre du groupe boo xam ne ñëwatul réunion ñëwatul assemblée groupe bi soxlaatu ko day saboté groupe bi génne ko ci boppam. boobu président groupe bi mën na koo def boobu radiation la président groupe bi moo koy signé. waaw et sous la double signature du député et du président du groupe. s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. ku bees ku bëgg a dugg ci groupe foofu la Moustapha Niass daanoo te Moustapha Diakhaté xam na ko ñeme ko tudd bu tudd ay ki déposé xam nga ko fi déposé hmm. ki déposé boo ko doon déposé xam nga nit ñi ñoo ñu yëpp newuñ fenn Omar Sarr waratoon déposé newuñ fenn diw wala diw moo war a déposé rek ne fi ci table président bi. non débat moom du déposé. du déposé xam nga kon Moustapha Diakhaté daru jéem ndax débat bi du déposé kon bu ñu ne Omar Sarr dafa juum déposé alors que Aïda Mbodj waroon déposé débat bi du ma ne Amadou fen yaa ngi bëgg a bëri nag ak nar yi gaa yi nañ xalaat seen bàmmeel xam ne di leen dee bis ma ma yeggali ñu ne sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement Amadou bu fekkee ni da nga bëgg a da nga apparenté mooy nga bokk ci benn groupe. xam nga groupe bi judd na ba pare constitution mooy naissance mooy constituer société. Mhm. ci notaire bi mooy mooy mooy acte de naissance société bi. constitution d'une société SARL. Mhm. xaaral naa kay gars yi war na jàngiwaat nag. lu ñuy ne constitution d'une société loolu mooy naissance d'une société. Mhm. Eh, ñu déclaré ko ci ci journaux yi. par le notaire. constitution d'une société boo ko la modification de. article bi. waxul constitution modification lay wax. waaw mooy article 22. ca la ni bu ay Aïda Mbodj baaxul ni modifi mel ni modification lañ toll xam nga luy modification. Hmm. mooy Aïda Mbodj bu ñu demoon ba doxal ay 2 mois wala 3 mois wala même 2 jours. fekk Fada di jiite groupe ba. non non non. waaye daal bokkatul Fada nekk du fa. non dama dama nañ def. dama lay leeral may ma foofu tuuti rek. may ma laaj suma laaj comme ça mu leer. Hmm. c'est-à-dire que bu dee groupe bi. Hmm. nee nañ Fada ko jiite. ñoom Aïda Mbodj nekk ci biir. ñu dawal tuuti un mois deux jour trois jours bu la neexee mu daal di kenn ci ñoom ne man bokkatuma ci la article 22 bii di appliqué wu. waaw noonu la mais ku bañ jaaxase xëy dama la kon loolu daaw la mënoon a am. que boo xoolee Fada Fada Fada n'existe plus pour man Fada. Hmm. zéro dégg dégg nañu pour bañ xeer xeer nañu di tudd Fada dégg nañu ci ci assemblée ba ñu festation bi jeexee ku ñuy wax Modou Diagne Fada assemblée xamatu ko. maanaam député simple la. waaw député simple mais li mu amoon ci ay ay prérogative amatu ci dara comme ñëpp. mook Moustapha Diakhaté. ñoom ñëpp dafa jeex dañuy delloo mandat dañuy delloo yëpp. Moustapha Niass moom génn na ci ndax léegi defal nañ ko 5 ans ak même président commission yi ay hmm. président commission yëpp dégg nga ay ay ay président commission des finances fi mu ne ba léegi falaatuñu leen ñu ngi nekk ndax dafa am crise assemblée liste bi liste bi mu ngi woon fii la 14 yow commencé fal fal groupe parle kii commission yi liste commission yaa ngi le mercredi 14 2015 calendrier pour la formation des bureaux de commission. ba léegi amagul. xam nga xam nga Moustapha Moustapha euh, Babacar Diamé mooy président commission des finances. Euh, na ami Djibril War mooy président commission des lois. mais pour le moment nekkatuñ ko. il faut ñu falaale wala ñu ñu remplacer leen. waaw ñëwaatal ci 22 article. waaw ma ñëw ci 22 bi. Euh, comme ñoom nekkatuñ dara ancien président yi. dañoo war a jël seen liste yi ba pare. bu ñu jëlee yi. bu ne ay Aïda Mbodj moo jàll wala euh, Omar Sarr mhm. wala Waré Sarr parce que parce que Fada moomu leen mhm. ñoo fi ñoom groupe bi ñooy tànn ku leen neex Fada du dañ duñ ni président groupe sortant mooy tànn président bi war a dugg léegi mhm. <laughs> droit moo neex newuñ fenn président bi ñu doomee woon bu at bi jeexee moom moo war a tànn kan moo nekk président bi pa pour ñu wax ak moom dañ di président ak vice président daal dañ ko ci dugaalaale chaque fois ñuy constituer groupe bi mooy mooy ñuy taxawal groupe samp bu bees ginnaaw ñu samp nag ba pare Waré Sarr wala Omar Sarr wala Aïda Mbodj n'importe qui ku ñu désigné daal groupe bi mooy président bi ëllëg ci ginnaaw ci ëllëg sax wala ci ginnaaw ëllëg sax wala ci weer wa ba at bi daal ba at bi jeex képp ku bëgg a dugg ci groupe bi di nga wax ak président groupe léegi nag da ngay jaar ci président groupe bi parce que bu nanguwul doo dugg loolooy article 22 waaw booy article la waaw il faut kër gi am ba pare dañuy diw mooy borom kër gi. ba la nga ñëw ba la loo doo dugg moo tax ñu exiger ci modification bi. double signature président bi nekk président groupe bi. ak ki bëgg a dugg si. loolu mooy bu fekkee ne xam nga groupe bi léegi par exemple 14 la wala 15 wala 17 wala 30. supposons mooy 30. ñu ne Amadou Diouf boo ko jiite vice président El Hadj Diouf benn Moussa Ndiaye jógee fële dama bëgg a bokk député la. d'abord il faut président d'accord te bu bu duggee day nekk 31 au lieu de 30 xam nga composition bi changé na moo tax ñu la article 22 c'est très clair les modifications apportées à la composition de composé de 10. léegi bu kenn duggee rek loolu mooy composé. xam nga xam nga xam ko ba pare. waaw jébbal ko président assemblée bi. léegi dugg xam nga da ngay changer composition bi du nekk day am benn bu yokk. effectivement il faut président bi signal la waaw comme fa nekk président du mu signaler. comme année bu jot dañuy wax kan mooy président bi c'est-à-dire président amatul dama bëgg mu leer parce que dañu bëgg a dofloo nit ñi. kon bu ma la déggee maître euh, euh, constitution groupe yi ñu toll nii. Ah. eggaguñ ci article vingt deux. non maanaam ci article vingt lañ toll. bi nga xam ne dafay définir ni ñuy defaree groupe. voilà ku ci nekk indi sa liste dugal respecté li nga xam ne mooy signature yi. c'est ça dugalaale tour président ak vice président ci biir liste boobu. jébbal ko kii di président assemblée nationale maanaam foofu lañ toll maanaam kenn mënut a basé wu ci article 22 bi nga xam ne day modifier group bu existé ba pare nga daal di ne liste diw wala list diw baaxul loolu mooy crime bi crime ñoo gën a tey ne modification c'est différent de constitution xam nga société mën nañ modifier capital bi mm-hmm. mën nañ modifier actionnaire yi noonu la mel groupe parlementaire dañ koy constituer comme société ñu xam ñan ñoo ko constitué ëllëg nag bu ñu koy bu ñu yokk capital bi wala ñuy def nee na wala kenn di bëggee dugg il faut que jafe nekkoon nangu xanaa. waaw lu tax nga ne liste Aïda Mbodj moo baax. <laughs> mais Amadou question boobu rek mooy mooy débat bi yëpp. Hmm. waaw Aïda Mbodj li ñuy wax yëpp la nangu yëpp la def mooy am na déclaration. Hmm. am na signature des membres. am na am na nombre bi mooy li ñu laaj ci ay nit. waaw. luñ ko mën a luñ mën ne moom moom defu ko ñëpp a signé turu nekk foofu ak Fada signé lu ko ci am sax lu terewul man leneen lañ ko laaj turu Fathiam nekku ya parce que Fathiam signé lu ko. turu âge Mamadou Cissé euh, signé lu ko ti gett PDG yooyu joo def ci Fada Fathiam Fada ak âge Mamadou Cissé bu kee dugg sur douze députés du PDS Ousmane Ngom dina ma bokkatul fenn neutre na. aw Diop ne du siyal kenn waaye signature aw Diop mu ngi ci bu fada li gën a grave signature Aïda Mbodj ak Omar Sarr ak Wade Sarr ak Lamine caam ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ci list liste fada te siyaluñ fada fada dem list liste 2012 def déclaration ñàmbas ko ci jël big yokk ci Diop si ak Khadim Thioune muy 14 12 jële jël yokk ci Khadim Thioune ak Diop si muy 14 loolu mooy faux usage de faux ñee sax da ngeen tàppee ci machine Khadim Thioune Big lañ ko ci yokkee xam nga pour boo yow lañ ci benn liste comme ñee signé wuñu ren daa daawaataate jéeg lay rangale parce que am na ci benn papier buñ signé woon ñi signé ren muy Khadim Thioune ak Diop Sy ñoom dañuy bindee Big ñu signé Big ñu signé ñu seen tur gi bi ne ko Big ñu signé maanaam bu tàppee waatoon du am signature ñee voilà <laughs> xam nga xam nga crime un crime n'est jamais lu tax ñee ñu tàppee leen ñee ñu yokk leen yokk leen ci ci ci ak alaame ñee signé ak côté en 2012. Mhm. ñu tàppee leen ñu signé bii paa ñu bind Khadim Thioune yokk yokk Khadim Thioune ci list bi pourquoi tàppe liste bu bees xam nga moo gën a xam ne moo am tàppe liste bu bees. Mhm. war na am signature yu bees. ndax at bu jot dañuy changer lépp il faut ñu signer la waaw comme majorité PD signé luñ ko day bàyyi liste bu njëkk ba 2012. dégg naa ko muy wax naan loolu ma si ko changé même Moustapha Cissé Lo nee na El Hadj Diouf avocat la c'est indigne xamul sax ni liste ba ñu déposé woon 2012 ba continuer ba léegi mu ne kenn mësul gis at bu jot ñuy déposé liste bu bees. loi loi bi waxul lool de. mais moom mi vice président assemblée nekk da xamul sax li assemblée da wax man dama rus xam nga loi bi lii ren daa ko dañ ni. session yi mën nga koo tënk rek wax nga ko fi ñeenti yoon juróomi yoon la ñuy lay yi at bu jot at bu jot day am session pendant la législature toutes les sessions bu am at la déclaration ak signature des membres ak désignation président ak vice président yu bees dekk de Moustapha Cissé loo xam ñu nañu gars yi tooñ ah. ñu xamuñu dara ñu nekk ay vice président taxaw naan at bu jot kenn du fi def liste bu bees loolu amul fenn xam nga ni xam nga loolu mooy ku xamul sax loi bi dans El Hadj Diouf en tant sax loolu man li ma xam mooy loi bi moom moo xam loo xam nekku ci loi bi loo xam ne moo leen daaneel nag te ñu yore seen laam yu rëy di wax man dama rus waaye li yaa ma laaj lu tax ay da mooy li moo baax amul dara lu ñu mën a ni lii Aïda Mbodj defu ko ci lañ ko sant dafa déclaration boo ne ni ñoom lii mooy seen groupe signé nañ ñoom ñëpp ren amul signature daaw jeeg bu sàcc bind nañ ni Aïda Mbodj mooy présidente ki topp ci moom keneen la waaw bu loolu lañ santaane président assemblée nationale mi nga xam ne dafa ñëwoon pour jalgati denc liste yi ne pat ti boo gën a xam ni list yi dañ koo war a lire avant ñuy élire bureau bi maanaam publiquement publiquement ci assemblée ba defoon na ko daaw bi réew mi jéemewul groupe ne Modou Diop Decroix da ko jiite ak ñoom Thierno Bocoum benn militante bu Idrissa Seck xam nga gaa yi def ak moom ca bis ba mu mu mu bett leen toroxal leen ne moom bokkatul séance tenante ci groupe bu bees yi du génnul génnul mën bokk yaakaar séance tenante waaw gaa yi di leen rey sax ba xaaxataay di leen saboté ñëpp di ñëpp ñëpp ñu ridicule quoi c'était vraiment extraordinaire ñoom ñëpp ñu am gàcce rus ndax foo ñu am nañ groupe ba pare ndaw si gars yi def ak moom négociation bu digg yëpp bëri mën a nekkatuma ci yéen ñu laaj ko ne man jànguma xaw ma woon li may signé signé loolu naa leen mais sama signature ba nanguwuma ko ndax xaw ma lan la président ne ah comme moom moo ne xamatoo lan la signé kon bokkul ci yéen kon amatu leen groupe ñëpp ngi toog ci salle bi ma ne kon groupe bii bëggoon a nekk groupe mënatul juddu ndax manqué na kenn. da ngaa wax ne bëgg a wax ne noonu la président Moustapha Niass waroon na defar. la waroon doxalee mais comme càcc du droit à raison comme sàcc ko jiitaloon ak ak jalgati bu tey koo ñëw rek commencé nañu élection alors que loi bi lii la wax pour dire que président Niass mun nañ ko ci tëj pour haute trahison pour pour euh, pour euh, faux usage de faux pour lu ay lu bëri la def ay garaaw ak la def. et crime même contre la constitution et la république bi article 14 déglu leen ma de Sénégal alinéa 2 article les vice-présidents les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste liste groupe de liste pour chaque fonction point chaque groupe groupe parlementaire yi de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la etc. et à la représentation proportionnelle, selon la méthode du quotient électoral, calculée sur la base du nombre de députés. mais li leer na ma leer leen loolu dañ ni président moom bu ko neexee ba kenn mu présenté wu pour ne président assemblée. mais nañ ñi ñu des membre de bureau yi vice président yi secrétaire élu yi ak questeurs yi amuñ droit demal seen bopp sans liste groupe parlementaire présenté leen maanaam élection liste la élection liste la waaw ñu mel ne élection député amul ni day liste lay nekk il faut nga am cent cinquante yi ak suppléants yi sinon liste baaxul mm-hmm. groupe parlementaire it dañu naan groupe bi déposé na dégg nga ñu ne tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral calculée sur la base du nombre de députés inscrits dans chaque groupe nombre de vice-présidents yi pour ñu xam ni benn boo ko yaakaar war na am nangam vice-président groupe libéraux war na am nangam vice-président wala secrétaire élu dañuy def quotient dagg ni nombre de députés yi par nombre vice président yi ba xam na kii war na am vice-président wala déet waaw code boobu ñu xamul groupe bi ñaata ñaata ñaataa ca nekk nu ñu mën a élire vice président yi ak nu ñu xamee ne yëpp benn bokk yaakaar moo war am vice yëpp. il groupe yëpp mat de. ah xam nga ñes xam na ko moo ko tey xam na ne groupe rek moo mën présenter liste et puis bala ñuy présenter liste il ñu xam groupe bi li mu yelloo. comme ça groupe bu bëgg demander par exemple huit vice président. dañuy xool na nga toll. dañaa ko di amoo ci droit. waaw dañuy xool ni group bi toll. waaw noonu lañ koy séddee ay post voilà. commission yi noonu la questeurs yi noonu la euh, secrétaire élu yi noonu la yëpp dañ koy diviser par le quotient électoral ah, man man neewaatee wu ma dara. Mm-hmm. waaw bi nga xam ne groupe bi yaa ci nekk ndax liiru ko pour ñu xam ku nekk sa élève waaw nu mën a élire ay ay ay bi jeex. waaw léegi ma laaj laaj non leer na mais li ma bëggoon laaj mooy est-ce que ñaari groupe mën naa am ci libéraux yi. ñaari groupe ci lay bëree mooy lan mënul am. groupe bu Fada ay Aydoumboul. non am parce que déclaration politique bi boo tax moo tax ma ne la njublang bi njublang président assemblée def mooy bañ a liir groupe bi moo tax ma yëkkati woon loxo ci biir assemblée pour nga ko ko élection bureau bi baaxul dañ ko dañ ko mu ne ma waroo wax. xoolal article onze bi ma doon wax onze article onze. Mm-hmm. ma rak j'aime bien Abdou Mbow mais nga xam ne mooy tërëri rek c'est normal je le comprends moom mu gën a xam droit ndeysaan na. Mm-hmm. xanaa kon ma war a xaro ji article 11 aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau définitif loolu rek xam naa ñaar moom ñàngam foofu la yem lu ci topp lan moo ci topp parce que jour dafa a pas de débat yaa ngi dégg lu ci topp sauf s'il porte sur des questions de procédure relatives à l'élection en cours kon de am nga droit wax buñ paree da pare xam nga dañ pare rek mm. man a jot naa fi déclaration ñaar ñaari ñaari kii ñaari liste waaye dama koy renvoyé bureau ba ma ne ma bëgg ko ne ko déet kon nañu reprendre élection parce que xëy ñooñu il faut ñu xam nag am nañ droit ci vice président am déet te fan lañu ay vice président il faut groupe yu xam ñaata lañ pour xam ne ko ndax benn boo ko yaakaar moo war a am vice président yëpp moom kenn ak secrétaire élu amu ci droit il faut ñu xam nombre nombre yi composé député yi composé yi nekk ci yenn groupe yi xam kon jalgati na parce que groupe groupe rek moo am droit présenter liste te foo ñu xam group bi ñaata la toll déjà boo booloon ñaari groupe yooyu rek am nañ droit ci vice président. te comme groupe yooyu dañu am problème muy kii listu de Mbodj ak ki nga xam ne moo de listu Fada dafa am problème kon nu mënuñoo tëb tëb commencer élire ay vice président. voilà ensuite groupe yi dañu am droit seen droit mooy ñu présenter ay liste kon xañ nañ leen seen droit même si on doit rejeter le risque am nañ droit présenter liste bu nga ñu ne ah, matul. amu leen droit ci vice président kat ndax amu leen nombre bi wala am ngeen droit ci vice président ankay mu ngi nii am ngeen droit ci benn secrétaire élu am ngeen droit ci ñaari commission am ngeen droit ci benn questeur mais il faut ñu xayma ko xam ko ñun ñun ñun ñoo koy utal suñu bopp président assemblée moom assemblée pla la plénière est souveraine séance trente day soumettre question yi à l' assemblée bu amee problème ñu voté. waaw maître. mais foofu laa bëgg léegi rek benn question bu ndaw. waaw nga daaneel ba ma dugal question waaw. ci lu tax. président defu ko. cest à liiru ko bu ko liiroon loola waroon def. kon Aïda Mbodj dana yëkkati loxoom Omar Sarr dana yëkkati loxoom Woré Sarr dana yëkkati loxoom euh, Lamine Thiam dana yëkkati loxoom ne bokkuñ ci groupe Fada. ni ko euh, ndaw soosu bokkoon réew ma defee woon. waaw ni defee daaw kon Fada juróomi député lay xam nga kon amul groupe. te te kenn du yëkkati loxoom ne bokk ba ci bu Aïda Mbodj. ay da dana wax ne signature yi ngay jot président signé wu ma ko nañ génne signature xam kañ laa ko signé fane de 2012 ñu ne ko écarté bokkul. waa léegi loolu leer na léegi li ma bëggoon a xam mooy ñoom Aïda Mbodj ñooñu nga tudd ñoom Omar Sarr rek yooyu est-ce que fii ñu toll tembe mën nañoo ne ñun bokkuñu ci euh, groupe Fada démissionné nañ. démissionné ak lan moo leen ciy fekk. duñ démissionné yow it nag. bii daal yow yaa ngi ci bi. déet damay laaj rek. non la te fekk tudd démission rek mooy xamoo xamatoo dara comprendre naa lépp damaa bëgg téléspectateurs yi comprendre démissionné kay da ngay loo xam ne déw ko moom fa war a bokk ci groupe bi loolu nag bi ñoom ñoo tànn ay dëmbooj waaw ñoom lu ñuy démissionné loo xam ne ñoo ko moom seen bopp Fada amul groupe bu ma déggee Moustapha Soro naan même bu ñee demee mooy président groupe yooyu fu ñuy jëm ñooñu ñoo moom seen groupe def seen déclaration signé ko mat nombre bi ñu leen laaj Fada am juróomi nit rek la mais bu assemblée nationale comme fi mu nii xam nga fi mu toll nii. assemblée nationale groupe Fada le reconnaître. c'est un constat. non am du constat amul. ah déet. non assemblée reconnaître la. Ah, assemblée keroog ba muy reconnaître ne. Hmm. ci yoon réew mi amul groupe fan la woon. gudd ñu envoyé benn communiqué soleil moo lire ko ñun ak ñu ñooy assemblée nationale. bureau bi amul droit. bureau kon ma changé waat sama laaj d'abord bureau amul. waaw baal ma retourné sama laaj. kon kon lu ciy pexe. lu ci pexe mooy wotewaat mooy ñëwaat ubbiwaat assemblée bi. bu ñu wotewaatul nag. ah rayante dina fa am. blocage dina am kan ak rayante député yi ci bokk. Hmm. ndax du ma bokk ci def ba pare mu mel ne man dama fa ñëw pour setaan assemblée moom day ko saboté du am lu leer laa leen wax. maanaam maanaam bu ñu maintenir bu ñu maintenir groupe Fada ne groupe Aïda Mbodj amul. waaw assemblée nationale boobu yow maître e la Diouf doo ko bàyyi mu am. du ma ko bàyyi mu am te Sénégal war nañu wàcc assemblée comme 23 juin. ndax lii moo gën a grave 23 juin 23 juin dañoo jéem mais bii dañoo def ils ont commis le crime dañoo dañoo rey dañoo assassiné dañoo fagaagal démocratie ak loi yi fada benn groupe signature daaw jéeg yow d'accord nga ci man baaxul mhm. waaw kon fada amul groupe cinq la boo dindee ñoom ay dem boo te xanaa xel may wala ñoo ko signal waaw léegi waa PDS loolu leer na mais waa PDS nee na ñoom dinañ dem ci yoon ngir ñu delloo leen seen yelleef. waa xam nga loo sax mën na am ndax mën nañu demander flagrant délit ñu arrêté Moustapha Niass ak Fada dégg naa sax ay waa Benno Siggil Sénégal naa El Hadj wala wax yooyu dañ ko war a moom di yóbbu ci yoon ak Moustapha Cissé Lo parce que ñoom jànguñu te ñoom dañuy tarbi yu Niass mais xam nañ ni Moustapha Niass man mënu maa tëj man maa ko tëjlu ndax man député laa te mu ngi mu ngi violé les lois la République mais par contre gën a xam ni Fada masul am groupe ñu naan ils se réjouissent dañu kontaan yow benn boo ko yaakaar nga wala yow APR nga looy kontaanee ci ab ab voleur bu ñu jàpp tricheur bu ñu jàpp koo xam dafa indi ay signature 2012 président assemblée war ko écarte ni ko yow la xanaa du jël signature 2012 yi violé article 20 ak 22 du dëgg. Mm-hmm. article 20 yi violé ak session bu jot ak signature ak déclaration ak nouveau président kon bu fekkee ni ñoom dañu naan fa euh, dañu kontaan ci euh, Fadama Gagne Fadama fu mu ab sàcc bu ñu jàpp buy dem ñu ne ko ah signature la ko sàcc ba mu ne waaw bu sama sëroo ne signature kenn du ko changé depuis 2012 kenn du ko changé El Hadj jàggul dara avocat bu indigne la ma ne waaye président vice président bu indigne kay. ndox boo xam ne day xeex ay Cheikh Kanté dem Touba dafay xeex def lu ba jàq Touba kooku nga xam ne c'est un fou dangereux hein dangereux encombrant encombré Touba ba génne ko Touba kooku moo taxoon naan El Hadj Diouf li mu jàng dara ndax at bu jot kenn du signé signature bu njëkk ba la. xam nga kii kii bu nekkee mooy deuxième vice président assemblée. assemblée bi xam nga ne dellu na ginnaaw de. ah assemblée boobu nga bokk de. mais chaque fois ba ne assemblée la plus nulle. waaw de l'histoire parlementaire du Sénégal. waaw léegi tontu sama laaj dama ne waa PDS ñu ngi fas yéene dem ci yoon. waaw pas pour yóbbu Moustapha Niass ci yoon kese wala xaw ma Fada ci yoon. mais ngir li nga xam ne xew na assemblée yow juriste bi laay lan mooy les voies juridiques. yi ñu mën a utiliser ba mën a rentrer dans leur. Euh, waaw d'abord délibération du bureau de l'assemblée. bien que faux la parce que président rek moo ko signé. te guddi la ko décidé ay minuit ay guddi da ko envoyé soleil xam nga. xam nga ci moo ne woon àllarba boobu dem leen ba àjjuma ba journaliste bi. effectivement non groupe bi mu euh, pré bureau. Mm-hmm. bi dafa compliqué dàq nañ ko ba àjjuma. Mm-hmm. presse bi yëpp bind am na journaux yu bind euh, le bureau maintient le suspense. Mm-hmm. ci guddi ga sa waay balancé affaire bi donc këram la toog balancé affaire bi. code du bureau bi xam loolu mooy faux encore beneen faux mais bi gën a garaaw mooy bureau bi ci boppam amul décider kan muy diriger groupe parlementaire groupe parlementaire c'est privé affaire Wade la ak Macky Sall c'est politique déclaration politique gis nga assemblée tout est parlementaire sauf les groupes parlementaires. waaw tontu loo sama laaj bi de. au plan juridique. waaw yan voie. ci laa jëm si c'est recours le PDS mën a utiliser. alors euh, Amadou. PS mën a attaquer Moustapha pour pour euh, faux faux ak Fada. PS mën attaqué devant la cour suprême li mooy délibération bureau loolu la waxoon nañu bureau bi moo ni euh, Fadam moo baaxle. donc mën na attaqué devant la cour suprême délibéré bi. délibéré mais délibéré amul sax loolu beneen foo ngoog. waaw d' accord nañ considéré de délibéré am na délibéré la mais bëgg naa ñu woon man que nangam nangam. Mm-hmm. waaye xam nga communiqué lañu envoyé. maa nekk ba jox ma seen délibéré. xam nga ni càcc bi sàcc dana yomb na waaye foo koy tëggee donc donc le amul mais mën nañu ko attaqué devant la cour suprême parce que mel na ni délibéré la mais loolu yëpp c'est trop théorique mais am na loo xam ne dañu ko war a jafe. nga 23 juin mënoon nañu ni soppi majoritaire na bu ko neexee mu wote ko neex. Mhm. mën na wote ticket présidentiel mën na waxe mën na wote passage au premier tour avec 25 pour cent ndax ñooy mu am majorité am nañu ci droit ba teg neexoon. Mhm. Sénégal yi ñoo ne noonu fi am. Sénégal yi damay lancer un appel na ñëpp mobiliser. jar nañu wàcc mbedd mi def euh, def grève grève illimitée ngir di xew assemblée mais dafa garaaw quand assemblée di violer loi bi ñëpp janlo lu toll ni loi kon xeex bi nar naa metti loi moo gën moo chef président de la république mais damay lancer un appel solennel aux Sénégalais ñu ñëw parce que kanam borom a koy fajal boppam na jar moom ay manifestation tous les jours pour le respect de la loi mbaa duñ la woo pour appel à la sédition ban sédition pour au contraire dañu mën pour pour appel à l'application de la loi au respect de la loi parce que la loi est impersonnelle et générale mais quand les gens violent la loi et qu'ils sont pas inquiétés képp ku ànd ak ñoom da nga da da nekk recel de malfaiteur da nga ànd ak ñoom wala nga nekk complice donc képp ku bañ ñu sanctionner assemblée. wala ñu wax ñu wax président assemblée mu reveniraat ci élection bureau bi. Hmm. ñëwaat poser les listes yi mu jot assemblée. ñu étudier leen séance 30 avant ñuy voter mais képp ku bañ loolu te a assassiné la démocratie il faut que sénégalais yi approprié wu jël seen lañ moom la loi elle est elle est générale et impersonnelle. la loi est la loi est malmenée piétinée par le président de l'Assemblée nationale le président assemblée dafa dëgg ci loi bi jalgati ko te war nañu ko bàyyi muy liggéey assemblée même mu mënatu fa mënatu ko présider. président Sall dafa war a démissionner président Macky Sall moom mi njiit majorité bi ma nekk assemblée majorité benn Bokk Yaakaar seen njiit man Benno Bokk Yaakaar la bokk sur le plan politique mais sit naa leen jëpp naa leen assemblée ba mënuma bokk seen group dama nekk non inscrit assemblée nag groupe boobu dara jogu fa man dama fay sama 20 millions sunu coalition dem coalition leeral am suñu plus forest kontaan ci loolu nag am député ndax am na ñu nekk ñu ne parti yu mag lañ bu ñu demaloon seen bopp est que dina am sax plus forest ndax dañoo ñëw muy PS AFP PIT LD beaucoup de parti plus APR ja ànd pour am ay député kon ñooñu man moo amee plus forest yem jib ak jëbo ko nombre bu ñu ñëpp ko nekk benn député nga am ah raw ñeneen ñoo xam ne maa la ëpp ay plus forest te ñu nekk député kon man ma defee naa xeeb ma sama bopp mais par contre nañ bàyyi yàcc ci yasar bi na président Macky Sall xam na ni li ma ko yéene jàmm rek laa ko yéene ndam rek laa ko yéene mais lii ñuy def war ko setaan moom mooy le gardien de la constitution maa ngi koy o en tant que de la constitution xam naa lu wax Moustapha Niasse dina ko def ndax ñëpp xam ne mu ngi koy tarbiyu na ko oo comme sëriñam mooy sëriñam ci moom la jébbalu léegi na ko oo ni ko la am assemblée man may gardien de la constitution jalgati ngeen yoon xam ngeen groupe parlementaire mooy njëkk avant ñuy fal bureau xam ne groupe parlementaire du bureau moo ko daan bii baax wala bii baaxul assemblée koy wax pour ñu mën a xam ñan ñoo signé ak ñu xam nga ne boo jaawal boo defalee yoon ay dëmb mooy jàll lu tax parti Macky Sall porte parole Seydou Seydou Gueye naan kontaan na ci victoire Fada Fada fu mu amee ndam benn sigil Sénégal bu Moustapha Niass nga xam ne amul benn njëriñ parce que benn sigil Sénégal mooy regroupement d'escrocs une grande escroquerie politique ndax man falaa nekkoon mais benn sigil Sénégal xam nga lu ko taxoon a jóg fal Moustapha Niass président de la République mu lajj kon benn nu fi defati benn sigil bu dee ñoom Macky Sall ànd. naa fekk la pour ànd ak ànd ak encore benn Siggil Sénégal na ñoom nekk benn bokk yaakaar jàppale Macky bu defee amul lu ñuy calculer ak lu ñuy jéem a jëlee Macky otage waaye sama gars yi kay dañ nekk benn bokk yaakaar rek waaye benn Siggil Sénégal ca biir benn bokk yaakaar da ko benn Siggil Sénégal la ko taxoon jóg mooy fal Moustapha Niass yàlla nanguwul la def Coulibaly ci la bokkoon Penda Mbow El Hadji Diouf Moussa Touré ñaq euh, Moussa Touré jëriñ askan wi xam ñëpp ancien président euh, de Euh, je crois de l'UEMOA ñu bëri na ko dañ génn nañ léegi daal même LD génn na génn na ci waaw benn sikki Sénégal bu ñu continuer di réunion ñooñu xanaa kon Moustapha Niasse candidat toujours cest à affaire bi naa fekk gi dafa bëri ñoo ñoo taxul tëb dal na El Hadj Diouf warul wax lii ah warul attaquer Moustapha Niasse parce que moo leen di jox ay poste conseil économique mooy négocier Macky pour jox leen poste bureau assemblée nationale mooy négocier pour ñu nekk ci bureau assemblée bi am ay commission ñu nekk di tarba yu Moustapha mu nekk seen avocat ci Macky Sall je le comprends mais ma président Macky Sall maa ngi lay ñaan nga def déclaration adresse à la nation parce que c'est grave assemblée dafa am c'est sérieux assemblée nationale ñooy voté loi yi loi yi moo gën a fort président. Hmm. loi moom moo sut président de la république. président de la république Macky Sall waxal Moustapha Niass mu convoqué assemblée présenté groupe yi. ku bokkul ci group bi bokkuma ci groupe bi matul comme fara ñu xam ne matul ñu écarté ko groupe bi mat continuer muy bu ay na dem ak sa groupe léegi bu président Macky sal deful lii nga wax. waaw est-ce que mën nañoo xaar maître et Hadj Diouf ne dootuma siéger ci assemblée bu mel nii. non kon bu yomb ci ñoom dafa fay nekk di leen wax dëgg di leeral askan bi ñal jalgati yi fay def yëpp bu ma demee yow yow yow yow bu ma demee ñu fecc di ko seen sëriñ. seen sëriñ dañ ko neexal. Mm-hmm. ma génn assemblée bi nii. amatul kenn koy waxal assemblée bi fi toll yi Sénégal yëpp war nañu ànd ak El Hadj Diouf li may kaas man bokk ma groupe Aïda Mbodj faralu ma Aïda Mbodj bokk ma ak Fada àndu ma ak PDS waa PDS dañu ma mere ndax ma appelé contre Karim Wade bañ tëj ko kon man àndu ma ak ñoom mais juin man groupe Doudou Wade laa bokkoon mais dama ànd ak peuple bi encore contre contre le ticket présidentiel man dama gëm ni maay député du peuple waaw yow député du peuple. dama gëm ne fu ñu bëggee rayee démocratie wala. wala peuple bi ñu peuple bi. très euh, waxtu mi ngi ñuy waaj a xoj mais comme yaay député du peuple am na loo xam ne mënuñu see ñàkk a laaj te léegi mi ngi xew ci réew mi mooy coupure électricité nga xam ne ñu ngi koy gis muy dellu di gis aussi li nga xam ne mooy pénurie ndox bi yow en tant que député du peuple loolu aussi lu soxal askan wi la loo ci mën a wax. waaw man de askan bi rek d'ailleurs euh, maa ngi profité ci émission bi wax ne gouvernement bi ba mu Macky Sall wax sa ministre yi ñuy tontu ci question orale yi bu ñu jëm a gëmloo ne premier ministre rek dañ war nekk buy ñëw ànd secteur bu ne bu amee question orale ou question d'actualité pas adressé au gouvernement waaye bu ñu adressé ministre bi ci boppam comme ni Samuel Sarr ñëwee woon tontu ci courant bi ñu téye ko fa 10 heures ba 22 heures Omar Sarr ci inondation yi ñu téye ko fa boobu yaay mu ngi soog a gaañu mu jógee Dagana ñu wuy si 10 ba minuit ci inondation yi dama bëgg ministre bi bu ñu defee question orale ci affaire tourisme ci affaire coupure de courant yi affaire njàng mi problème bu am affaire màkk bi parce que question orale man préparé naa yu bëri. ngir yàlla nañu wuy si député yi wax ñoom wala ñu nekk ba mu premier ministre ñëw ñu ne non inscrit kenn ay wax xam nga bu dee mën nañ léegi vingt quelque non inscrit léegi man dama wax kon benn non inscrit mooy wax. Mhm. léegi ñoom ñu am parole ñoom ñoo ñoo ñu ànd ak seen ministre seen parti bokk parti. ñoom ñooy posé question ministre yi est-ce que boobu dana leer léegi nag boobu boobu lañ bëgg a naxee Sénégalais yi mel ni ministre yi amatuñ droit ñëw assemblée premier ministre daal moo war am droit ñëw ak ay ministre am day premier ministre dafa war ñëw ak ay ministre am du tere ministre yi ñëw individuellement tontu si député yi mais boobu noonu ñu koy bëgg a nëbb di ko maq pour ndax ndax sénégalais yi parce que depuis premier ministre maa ngi koy gërëm di ko féliciter ndax am na fit ñëw janloog député yi waaye du tere nag muy bàyyi léeg-léeg ministre yi individuellement bu ñu leen ooyee assemblée comme ni ñu ooyee woon Samuel Sarr ci coupure courant yi ni ñu ooyee woon Omar Sarr ci inondation yi individuellement benn par benn ñëw tontu si député yi bala ñu moo gën ñuy làqu ci premier ministre ñëw en groupe ñu noonu fees dell salle bi ku nekk ñu may la benn seconde nga wax boo paree kenn du tontu loolu musiba la. waxal ci ndox mi waxal ci ndox mi courant bi. ndox mi courant bi ñàkk liggéey gi. insécurité bi ray yi Grand Yoff fetal yi rey yi Thiès maris partout agression yi. yaboy bu cher bi. vie bu cher bi lépp a cher même yabooy lépp a cher même géej gi dafa cher lépp a loolu président Macky Sall foofu lañ koy nekk PSE baax na lool plan waaye Sénégal yi amuñ temps boobu la demande sociale d'abord maa ngi koy gërëm ci ne am vision pour génne Sénégal sous développement yóbbu ko ci développement. Christine Lagarde wax na ko foofu am na ci ndam te bu ñu ko toppee Sénégal la développé mais bu fàtte aussi le présent ndax le présent mooy li ñu dund avant ñuy jëm deux mille trente cinq dégg nga li ma vingt ans li ñuy dund ah na nit ñi gis seen bopp ci réalisation yi le président li def ceeb bi yomb diwlin ji yomb courant bi ñëw ndox mi ñëw bu ko defee day amaat beneen mandat bu ko deful nag. garanti wu ko ne dana am sax dana dem deuxième tour xëy na ñeneen ñoo dem deuxième tour ndax nit ñi bu ñu meree poche yi dara nekku ci amoo ceeb amoo diwlin ku courant bi coupé boo bëggee sangu doo am ndox da nga mer mer goo xam ne da ngay daas fanaanal ni ma du ba ci boole wax ju bëri. contrairement ak li mu ñu jëlee ay jiboka ñes bi nga xam ne parti am dee na lépp maa ngi yóbbu na ko bu dee ñooñu ay appareil la yaakaar pour gagné waat ak PS bi nga xam ne ëllëg da koy war mu yaakaar président bis dana ñëw dana El Hadj xarit mooy yow yaa ma waxoon dëgg xarit du ki la wër rek di la la wax lu la neex xarit dëgg moo lay wax sa doomu ndey mën naa la sa gémmiñ gi xasaw na moo tax toujours dama koy wax président lii ak lii baaxul da ngay forcé dama ko contre ndax ki aime bien châtie bien hmm. moo tax ma ni président Macky Sall ubbil say gët xoolal bu baax c'est-à-dire ñi lay conseiller ñi lay wax dëgg pour nga jëm kanam pour nga am résultat pour ñu falal la ak ñi lay wër di la nalawal ni la lépp baax lépp a nooy te nee na la appareil politique du fal kenn APR doon woon appareil du dara da nga ko soog a créé amatoon doole ba léegi nii kenn structuré wu ko mais sénégalais yi ñoo ne Macky Sall la ñuy fal kon appareil yi ay appareil URD e, e, ak ay AFP yoruñu ko ay PS defal lu population gis sa bilan nga ñu doon ci teg baaraam duut baaraam mais bu boobaa ku ku nekk dana xam ne sa poche gën na fees sa doom ngi jàng di sonnoo ci loolu ci matériel scolaire lépp cher livre yi kay école yi cher wetu de classe yi bii nii parents gi yaa ngi sonn na sonn tous les jours man dina ma sollicité ci ci ndimbal tous les jours tous les jours le député du peuple dañ koy sollicité c'est normal mais Sénégal dañu sonn Sénégal dañu kiif dañu mar ñu ngi ci lëndëm gi xale yi liggéey liggéeyuñu président rek la problème yooyu boo ko réglé ju falaat la boo ko réglé wul daanu rek. loolu mooy kàddu gu mujj gi fii ci émission amul na boo ñu bàyyi la rek nga tàggoo to maître El Hadj Diouf. Amadou dama tey. wax ak Sénégalais yi ndax coow li bëri na te seytaane dafa bëri doole te naa fekk dafa garaaw jaxase xel yi mélangé leen dafa yomb ba ñëwee na wooy war a toog fële naan diw laa tànn groupe bi dañu am tiit dañu am kilifa comme Macky nekkee kilifa Moustapha Diakhaté kon nañ nangul aussi Ablaye Wade mu nekk kilifa quand même waa PDS ni mu nekkee du kilifa moo tax ba tànnoon Modou Diagne mu Modou Diagne Fada bu ñu doon tànn boppam kanamu Souleymane Ndéné Ndiaye Omar Sarr ak Ousmane tey fa ka tànn Fada tànn na keneen muy Aïda Mbodj Aïda Mbodj moo am majorité Fada ñetti député PDS la am ak yeneen deux Khadim Thioune ak Diop ñu ñuy cinq waaye cinq noo mën a amee groupe parlementaire te at bu jot groupe bi dee na de groupe bees boo ñëw ak président bees ci diggante bi nag bu ñu modifié bu ñu demee ba demal ay fan ay weer ku bëgg a dugg nag ñu modifié muy article 22 waaye kon loolu laa bëgg loolu laa bëgg mu leer ndax. waaw ah, am naa yaakaar ne leer na sa xel yomb na <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo Sénégal yi ñoom mm. seen démocratie dañ ko sàmmal seen bopp mm. loi bi dañ ko gardel seen bopp ku ñëw pour jalgati ko dañ dal ci sa kaw xeex ak yow Sénégal jëm kanam réew mi naat maa ne leen gërëm yéen Sénégal ñoo ko bokk ku nekk da nga am Pastef bëgg sa réew ba ragal bañ xiif xaalis bu mu la jëlee nga jaay sa ngor privilège mooy am ay poste bu mu la jëlee nga jaay sa ngor ti benn yoon ñuy dee bu dee jotee ku deewul doo gor bu reyante jotee ku reyantewul doo gor bu ñafe jotee ko ñafewul doo gor na ñafe sàmm suñu démocratie yoon mayee na ko jërëjëf Maître El Hadj Diouf euh, yéen tam mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali rek ne euh, sunu invité tey moo nekkoon euh, Maître El jouf di député à l'Assemblée nationale nekk aussi njiitu partie bii di PTP nekk tamit ancien ministre ñu leen di jox dox daje dimanche bii di ñëw ci beneen émission amul na nëbboo bu 15 heures jotee maanaam ñeenti ñetti waxtu ci bëccëg. Euh, ñu di ko rediffuser mercredi mercredi àllarba bu ñuy 16h jotee 16h maanaam ñeenti waxtu ci bëccëg di leen wax rek ne seen émission amul na boo bu ko kenn tardé ndax fii la lépp di leere jërë ngeen jëf.